nekk si Facebook mm-hmm. vacciné wu ba pare mm-hmm. jël téléphone teg ko fii na woy téléphone bi day collé wala kuddu bi day collé donc tele télé télé télé mm-hmm. ñeneen ñi y fii une fille que j'ai écoutée sur Facebook nee dafa vacciné wu rek après commencé gis ay menstrues mu commencé mu commencé uré ay cycle mu commencé am irrégularité donc et puis après elle a montré papier buy wane ni vacciné wu na et elle a commencé à transmettre le message bu leen vacciné wu li gars yi doon wax ci vaccin bi di baaxul dëgg la qu'est-ce que vous nous dites par rapport à est-ce qu'il y a un euh, effet donc bu évident ci su fekkoon euh, ñëpp ñi vacciné wu hmm. ak type vaccin bu ñu vacciné wu ban vaccin lañ jël parce que ñu si bëri man ñi ma ñi ma xool dañoo jël vaccin à ARN vaccin ARN yi ñu defar. Mhm. donc dañoo jël partie ARN message ça comme virus ARN la. Mhm. partie bi nga xam ne mooy codé pour bi nga xam ne mooy tax virus bi su duggee ci yow. ñëw ci sa euh, sa sa put gi. Mhm. wala sa bakkan bi ci biir taxaw fa. ñu créer protéine boobu. mais la ñu xamul mooy Sénégal depuis 66 dafa am coronavirus. dafa am ay xeetu coronavirus ay xeetu coronavirus yu fi doon am. moo tax communication bu ci njalbeen lañ salfaañoo. ba nga xamante ne tey jii. yow su ñu nee da nga corona ngay daw police di la dem di wëri di pour jàppi la ndax ku ñuy dem di ki taal daw talul bakkenam mhm. amoon na xeet yu fi am depuis 66. Mhm. am am am yeneen xeet yu fi am 2001 ñi ñi ñi xam ne mos nañ dem màkk. Mhm. soo demee màkk da ngay gis euh, suñu mbokku euh, naataango naar yi. si jumaa ji da nga gis ñuy sëqat. Mhm. ñoom am na ñuy ñibbisi tamit sax di sëqat pendant. su ñuy dem yow sooy dem màgg da ngay da ngay jël vaccin. vaccin bi mu ñibbisee sëqat na deux da ngay dem vaccin ñu yaakaar ne mbooyee bi fa am la. Mhm. déedéet ñoom SARS-CoV de type 1 la. Mhm. bi ah, fi SARS-CoV de donc corona type 1 bi fi nekk nii. bi ñoom bi la muy ànd na bi xew bi génn 2019 décembre. egg si fii mars 2020 SARS-CoV de type 2 la. 2 la oui SARS-CoV donc ñoo yem. amoon na merce MERSCOV également bi nga xamante ne mooy jàpp san pays bi moo gënoon graaw sax que bii mm. lu mu faagaagal si doomu aadama bii ni ñu toll nii bii fi nekk nii mm. covid bi faagaagagu ko ok donc te yooyu ay xeet yi nga xam ne am na ko soo jëlee vaccin à ARN bi mm-hmm. effectivement mën indi modification génétique mm. moom lañ doon ragal mais protéine bi rek lañu lañu la ñu jël nga xam ne su exprimé sa yaram dina mën a produire anticorps protéine spike waaw su ma juum voilà gis nañ ko c'est pour la protéine c'est gis nañ ko ñiy defal vidéo teg ko nii mais ñëpp ñu vacciné wu si vaccin boobu suñu defoon expérience bi ñëpp ñu général ñu mën a ko gëm te nit dafa dafa dafa doy waar maanaam dafa am lu nga xamante ni ay aptitudes individuelles hmm. qui n'ont rien à voir avec la science hmm. man mun naa ko def am am am mu nekkoon ci man xaw ma ko jël vaccin bi am na ñoo xam ne dañ jël vaccin bi ñu ne dañoo gis ne dañoo sentir ne ñoom seen góor dafa gën a yokk hmm. voilà ñu ñu wax togoñ waa togo wax yooyu. donc loolu si si gis-gis gi la si gis gi la ça n'a rien à voir avec le vaccin mais mais dañ ko wax. bu tax gars yi dem wëri AstraZeneca bi. mais grand man mais moo tax wala mais femme m'applaudisse ko. <laughs> malade malade non malade il fallait que tu trouves le moyen des si je suis applaudi astra bi mooy que yow benn dose nga jël yow de moom moom leer ba leer mooy. ok moom leer ba leer ah, su jugee diggante soixante dix soixante ba léegi su nekkoon ci biir Sénégal mën na sa benn xeetu coronavirus donc su tasee Covid 19 bi wala mu jël benn vaccin bi am na immunité moo tax ñi nga xam ne vacciné wu nañu. waaw moo tax ñi nga xam ne dañ ne vacciné nañu ah, xalaat ne ñoom ah, war nañu am kaaraange ba suñ jëlu seen deuxième dose jarul ñuy jaaxle ndax mus nañ taseex benn xeetu coronavirus donc mus nañ taseex benn xeet coronavirus ba nga xam ne ñoom jarul ñuy jaaxle jarul ñuy jaaxle te diir bi suñu ne la mën nga koo jël soo ko jëlee mu soo toogee ba diir trois mois nga jël sa rappel amul amul problème. ok ndax yow si géej gi dund. defuñu étude pour wane ne. mën nga tasee moom mais xeet bi daan na fi am. mais bu njëkk daaw ñu pandémie bi amul woon. daaw ñu regardant donc seul insupasseur moo doon def càmbar bi. envoyé ko ministère de la santé ñu ñu boole ko suñu si si journal scientifique yi mais duñ ko génne. fësal ko nit ñu duñ ko y ba Covid 19 commencé fësal. ñuy testé moo tax bañ ñu doon commencé PCR dama bokk si ñi njëkk a jóg. ndax man docteur science la en génétique des populations. ah génétique des population. Sénégal commencé woon du woon di càmbar di def ay ay génotypage. Mm-hmm. ma ne leen de teel na ngeen def PCR rek parce que mën na doon source autochtone comme mën na doon Covid 19. te PCR bi aar leen virus bi la mu joxe si yeneen plateau daan nañ ko wax. ba si njalbeen. xanaa chinois ngay làkk non non. la may li may laaj li ngay wax nii li ngay wax nii moom. non li may laaj yow chinois la la jox man kii la ma jox mandarin ba may def sama comme mandarin comprendre ñu sama ñaareelu thèse. dama jël ay si maa ngi doon def si toxoplasmose. damay jël ay si direct nit yi gën a compliqué ti direct nit waaw waaw docteur maa ngi ñëw Louga. Euh, ay ca maa ngi ñëw donc li ñuy wax génotypage mooy yow xeetu corona yi fi nekk il faut ñu def ko étude génétique pour xam est-ce que benn la wala ute nañ. waaw ça ne veut pas dire que genre bon pour mu yomb mel ni utal bu ci nekk carte d'identité. voilà carte d'identité ça ça dépend que ça ne pas dire que bii am Abass Ndao mhm. moo nekk même chose que bii sur suuf bi circulé Dantec. Mhm. wala buy circulé Pikine. wala buy circulé Guédiawaye. kooku génotypage moo ko mënoon def. Mhm. te mais ban njëriñ lay am ñu xam gén ñu def génotypage bi ne est-ce que on a juste maintenant une épidémie. benn suuf mooy circulé. ñu mun ko faagaagal. oui mën si wala. lu yu bëri suuf yu bëri ñuy circulé. Hmm. ndax PCR bi lu mu génne. dana wax ne yow ARN virus bi rek. waaw te juróom-ñeenti xeet yi fi nekkoon. ak Covid 19 bi. Mhm. bu ci mënta doon su la tesee da ngay positif. positif waaw dañ la naan positif nga mais ban xeet la. voilà ban xeet la mënuñu ko woon wax dul xam ok. ba euh, wàllu euh, direction directeur de la prévention ñëw na fii si plateau bi. neen ñu posé ko question commencé woon def génétipage. Mhm. grâce à professeur Mbow. Mhm. si si institut de recherche am. mu lëkkaloo waa Gambie. Mm-hmm. si lañ commencé def génotipage parce que ñun suñu génotipage dañu doon jël suñu suuf si suñu deret yi envoyé ko France pour ñu defuñu génotipage wala ñun ñu voyagé dem France génotipé foofu ñëw ndax Sénégal tegoon na benn projet fële jëm ñaajo ba bâtiment bi génn sur terre ba ñu jël deux microscopes de supercalculateur mm-hmm. mais eggaluñu projet boobu ka fa nekkoon ñu teggi ko ok donc amul continuité mm-hmm. moo tax euh, professeur Mboob nekk laboratoire IRESSEF de recherche moom moo njëkk a génne ne sous variant delta bi variant indien mi ngi circulé fii biir Sénégal ak yeneen variant parce que dañoo def génotypage mm-hmm. tant que def ñu woon génotypage mënuñu woon xam yan souche ñooy existé biir Sénégal dafa am solo donc ñun man ba may def sama thèse de sama deuxième thèse mooy doctorat ay science bi en génétique mm-hmm. dama jël samay samay deret ñu ma prélevé envoyé ko France ñu def génotypage mm-hmm. may soog a ñëw def samay publication génne samay article continuer sama thèse donc loolu doon indi gàllankoor si sénégalais compréhension pour ñu ad adapté wu si mesures yi nga xam ne état jël na ko. Mhm. ndax su ma nee la da nga ko da nga corona. Mhm. ñu teg la faj woo nga jékki-jékki ñu defal la test ne la wér nga da nga ñi dañ dañuy caaxaan mbir mi du dëgg. Mhm. loolu moo njëkkoon tax sénégalais yi amuñu adhésion. parce que waxuñu leen li amoon ak li bees bi bees bi am. parce que bi bees bi Covid dina dana doon dal rek yóbbu la sauvetage. aujourd'hui variant delta bi dalay dal. yóbbu la sauvetage rapidement ci ñetti fan. ci ñetti wala ñeent doogatul toog doogatul toog juróom-ñeenti fan yi nga xam ne da koy toog nga commencé wàlle ñu ne ñu testé la nga positif léegi ci ñetti fan da la yóbbu sauvetage. ok donc loolu moo si garaaw te dafa gaaw wàlle moo tax ñi professeur Daouda Ndiaye di alerté ndax lii xewoon premier vague bi réew mu tugal mhm. ba nit ñi di daanu si mbedd bi ba armée yi fees ba ñu leen jël di leen taal ci tali yi. Mhm. loolu la ñuy bañ Sénégal egg fa. Mhm. moo tax na nit ñi di di di safoo. balaa ñoo teg seen loxo. Mhm. seen kanam maanaam seen bët gémmiñ bakken nañ koy dañuy nañuy vérifier ñu raxas ko. raxas ko set ak saabu ndoxu saabu même loke yi ndoxu saabu wala fobeere plancher bi ndoxu saabu rek wala ordinateur wala portable raxas ko ndoxu saabu rek doy na. Mhm. une minute en contact day rey virus bi. xam mhm. nga amuñu doole nag. donc nañuy def raxas ndoxu saabu bi beneen bi vaccination bi etaa ngi si def ay jéego. ñu ngi dafay jéego. nañ dikkaat ci vaccination bi ñu ngi ci dafay jéego di dem di jëli ji ay vaccin yi fañ koy jëli jee. Mhm. nañ koy jaay. Mhm. naka lañ def ba indi ko ñooñu ñooñu ngeen gën a soxla parce que ñun ñu ëpp cas. Mhm. ñun ñu ëpp cas donc ñu war a vacciné wu comme ñun ñu war a vacciné wu ñu ñafe indi vaccin yi bañ ko indee am na ñu bëri ñoo xam ne nekk ñu kër docteur ñu ne bu kenn vacciné wu. stratégie bu njëkk ñun ñi nga xam ne ñoo nekkoon les soldats de de première ligne. ñun nag ñoo vacciné wu. man damaa vacciné wu. génne sama carte def naa ay vidéo circulé ne vaccin man vacciné wu naa ne nii dem vacciné wu mais gis am na ñeneen ñu ne duñ vacciné wu parce que dañu yaakaar ne dañuy testé vaccin yi suñu léegi docteur koy def xam nga du ñuy def comme sociologue teew na fii euh, Ibrahima Mbengue ñu ngi lay nuyu au passage def maa ngi lay fay kontaan trop di ñëwaat si jàkkaarloo je pense que bi mooy troisième fois ma ñëw dafa am lu mu wax lu am solo xam ne ah. bëggoon naa nga jàngat ko effectivement mm-hmm.